asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen siyaare fii ci dëkk bu tedd bii di Touba Mbacké eh, ñu nekk fii ci màggalu Cheikh Ahmadou Bamba gi nga xam ne niki suba incha allah la ko war a amal fii ci dakaar Medina ci seen télévision bu mag bi ànd koog pencum Touba te ki leen koy digtal di Serigne Mbacké Touré barikalla kon nag euh, ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di ñaanal xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi te wér ak mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi di siyaare mboolem taalibe yépp nag. ñi nga xam ni réew mi fenn fu nekk nit a nga fay jóge ci réew mi ci ci àddina bi ngir ñëw fekkee si fii di màggalu Touba gi kon nag noo ngi ñaan dul munta Mountakha mu yàgg fi te wér di ñaanal euh, mbooleem taalib yi ak julli yi ak mbooleem foo xamante ni si rek nit yaa nga fay jóge di ñëw noo ngi ñaan yàlla nunu màggalu jàmm ñii ñëw ñëw ci jàmm ak si ci jàmm delluwaat ci jàmm te Sëriñ Tuubaa lépp di siyaare Serigne Mass mi nga xam ni moom la ñu àndal ci caméra bi fas yéene dugg yéen ci biir jumaa ji nag jëlal leen di xew ci màggal gi yëpp danañ dem kër kilifa diine yi jëlal leen la fa xew danañ dem ci mbooleem kër yi nga xamante ni si dañuy dundal bis bi ànd ak ñoom màggal gi ak fii ci télévision Dak Médina kenn ku nekk yaa ngi rang ci suba ba léegi ngir bëgg siyaare bu ko defee rek dañuy laaj sunu mbokk yi rek laaj leen ba xam nuñ gisee màggal gi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ok sëñ bi na ngeen def. ñoo ngi fi de Tuubaa nan la. Fallou Gueye Mbour. sëñ Fallou Gueye Mbour nga jóge waaw Mbour laa jóge waaw pour ñëw rek màggal si bésu Serigne Touba bi ndax moo noon képp koo xam ne nii sama mbég sama mbég la su su bis bu jotatee na ñëw sant santalee ko boromam moo tax lépp si lépp luñ mën a nekk ak si lépp luñ mën a fekk rek bu su bis bu jotee dañuy bàyyi suñu suñu yëpp ñun bu ñu amee jàmm rek ginnaaw yàlla Serigne Touba la nga gisee màggal gi waaw maa ngi si jàmm bu baax a baax. loo loo loo ñu a wax ci bis bi. bés bi xanaa di sant yàlla bu wér a wér di que bésu tël nii moom bésu rëy la bés mag la te ñu koy ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén ñu déwén. affaire bi moom rafet na macha allah daal. waaw ah. koo jógee. Fass Boy. Fass Boy. Ah. noo gisee màggal gi. Maga ngi neex rek la def moom neex na moom. mbaa bi nga ñëw amoo ay jafai jafe yoon. non yàlla defal na nu jàmm amul benn jafe-jafe si yoon yi moom. Ah. waaw yàlla def na jàmm moom. màggal gi nga xamante ni si kenn ku ne gis na mbooloo mi fenn fu nekk waaye jóge na fa nit na fa ñëw ci màggal gi noo nga ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yag fi te wér di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yag fi te wér di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yag fi te wér gis ngeen bu ngeen gisee mbolo mi jumaa jaa ngi nii eh, ñoom ngi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 digle ci bernde lolo di màggal 18 safar ni ku ne ci rew mi xamna ni mom mi rek di magal itali xamna france xamna xam xamna lam mo di magal waron kon tay ni gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal waroon na kon tey gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi di leen waa ji safar yéen ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na kuy ñëw Tuuba fa muy aw ñam ya da kay aw ci barke màggal ñu yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak prison ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle kuy dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis di màggal màggal gu des na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moo ku ko deful wor ki woote màggal bamba danoo moom amun ku dul nañ toppi ndigalam te fonk màggal ma tàmbaleeti te wax le feeti te xam le feeti njariñu màggal ma tàmbaleeti te wax